salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare euh, ñu ngi ñëwaat ci seen waajtayu màggal Touba 2017 euh, tey jii ñu amoon gan euh, bu ñu ràññee ci dëkk bi di sëñ Adama ku yoo xam ne day waxtaan ci sëriñ bi tey jii ñëwoon seet suñu fii ci studio bi ñu dalaloon ko doon ko laaj ay kàddu ci màggal gi ak sëriñ bi sëñ Adama bismillah salaamaaleykum. maaleykum salaam sëriñ Saliou bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alqail fi kitaabil aziz wa tazawadu fa in xëri zaati taqwa fatakun yaa uli albaab summa salaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi zawiri wa tamkin sëñ Saliou sëñ Gora ñu ngi leen di yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bi leen sëñ Tuubaa jox ñu delloo bu ñu toll di am mbég mag nag ci dalal ngeen ñu dalal fas yéene waxtaan ñoom ci sëriñ bi. suñu kem kàttan ci xam-xam yi sëriñ bi dénk incha allah noo ngi taaxee lu kon suñu saa dama. suñu Adama jërëjëf kàddu yi am na solo lool dañoo bëggoon nga eh, leeral ñu màggal gi ak eh, fa mu tolloon ci sëriñ bi ak sëñ Touba tukkeem bu yaatu bi ak sëriñam bii mu ñu indil eh, suñu Adama loolu moom boo ci baaxee mbokki murit bismillahi rahmaani rahim yëpp sëñ Saliou laaj nga lu am solo laaj nga lu mat a xam laaj nga lu mat a xamle laaj nga lu mat a xam ndax àddina ñaar a fi nekk xam lu nit ki lu mu xamut day dem xamlu ji ko nit ki lu mu xam da koy xamle li ñu war a xam xamle nag màggal gi da cee bokk ndax màggal gi dafa bokk ci ayaamullahi li alxuraan di wax mooy bis yàlla yi ndax bés la boo xam ne bu ñu ko noon moom dara duñu jar bés la boo xam ne bu fekkante ni du moom daanaka jataay bi rek mën naa bañ am wala boog boo amee laneen la wax loo xam ne du ñu amal njariñ fii du ñu amal njariñ fële kon bës la boo xam ne waxtaane ko lu ko jar waxtaane ko lu ko jar la ngir sëriñ bi fi ko bés bi toll woon kem fa ko jëf ji toll woon lu tax xam ngeen ni ca cosaan xamoon nañu nit nit ñëpp nit yàlla yi lépp luy wut ba am ko ba nga ko amee bis boobu ca nga koy ca ngay màggal ca ay sant waaye sëriñ bi nag bi nga xamee ne ci la génn di wuti bis boobu la bisu def bisu cant bis boobu la bisu màggal ndax dama wax ni yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaar fii chari safar génn fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ngir liggéeyal rasulullah salaa sallam kon ginnaaw moom bi muy génn ci la def muy màggal gi kon bis boobu bisub génn te bis boobu bisub génn boobu tamit bisub nattu la bisub naqar la bisub tiis la ndax ay nattu la yoo xam ni moom moo ko ñaan su borom moo ko ñaan borom ndax yoonu géej gi kenn ku ne xam na ni ay nattu la ay tiis la ndax bi nga xamante ni ci gàttal rek bi ko yéen sansam fekkee ci Daaru Xuddoos ci eh, jàkkee sëñ Mbàkke Madina jooju ba xamal ko ni koy yoon géej gi taxaw na eh, ba sëriñ bi wàcc ndax dañ ko ginnaaw yooyu taxaw nag lenn lu ma la ci mën a dimbalee amul lu natt yi taxaw na te lenn lu ma la ci mën a dimbalee amul lu dul buy nattu ñëw ma buy waaj ñëw ma xam ma xamale ay nattoo ñooy ñëw sëñ tubaa signé loolu yonente bi signé jiital sëñ tubaa te loo xam ne te bu ñu dellusiwaatee ci àddina rek sëñ sëñ saaliw mm-hmm. lépp lu nit ki signé loola jeex na rawatina lu yàlla signé yonente bi signé kon faw mu dem te natt la woon wala yan la woon boo xam ne mboolem ñi ko fi jiitu woon ak wël yu boo mën a tudd rek jéem ngay jël yan boobu waaye doo àttan boo doxee ñaari jig di ko tegaat sëñ tubaa rek la yàlla kàttanal mu jël yan boobu yeggale ko fa mu loolu la sëñ Moussa Ka di wax ca way wa naan yan ba ñu yenoon xut bu yàgg lab daal ya te àttani ko yaa ko fab raw gaañ da ngeen di woy te tawatoo balaa ya suuratul laxwaan lam ci laaya mbër yi naaxi lañ bàmbay kaamil mbër yëpp suq lañ bàmbay kaamil nga xam ne eh, bañ ko yenoo xut bu ak gaa yu baax ya àttaniñ ko sëñ Tuubaa moo jël yen boobu yeggal ko fa mu jëm kon eh, te natt yi suuratul laxawaani la suuratul boo ko xamul mooy suuratul bàqara magi daara ñoo ko daan woy suuratul laxawaani mi ataani wa xam sama samaanuna aaya mooy cent 285 aaya boo xam bu ci nekk am nattu la bis boobee moo doon bis màggal bis boobee la sëriñ bi naan axrajtumuuni naatixiina bi annanii abdu ilaahi wa innii mujaahid génn ngeen ma yemu leen ci génn nga waaye da maa tuumal ni man jaamu yàlla laa boo xam ne dama bëgg xeex ak yéen jihaar ak yéen xusuuri xalat wal alwaani tafaraqat mu ni génn ngi samay kër génn ma sama sama sama tàggale ma sama njaboot ba noppi eh, yóbbu ma loolu lépp dafa xew ci bisu màggal loole mooy bisu màggal gi nga moom moom la Sëñ Tuubaa woote ni bu dikkatee suñu borom defal na ko ca loo xamante ni si moom lott na ci ci sant yàlla sant yàlla ci lam yi boppam kon képp koo xam ne sama mbig sa mbéga bu dikkatee nang ma ci santal yàlla ci berne ak jàng alxuraan ñaari berne rek moo am nit ñaare dañuy berde berde ci ñam waaye berde yaram ak berde roox benn yaram mooy togg joxe ñam ginaar ba ca giriw benn roox mooy jàng alxuraan jaamu yàlla waxtaanal nit ñi ci jaar-jaar sëriñ bi ci yan bu diis boobu mu yóbbu te kenn dimbaliwu ci kenn dimbaliwu dem ak dikk loolu la santaan bi bu dikkatee na ngeen ma ca santale yàlla loolu la wooye sañ am satu ni ko am satu mu nu mbàkke ma ko suñu borom daf maa jox bés bés boobu moo jox nag xamal na ma ne bu dikkatee lu ma ca fayan dina dina ko ful waaw lum ma ca fayan ko dina ko dina ko ful nga xam ne kon eh, ba sëñ Tuubaa wootee màggal ko ba nëg ni nii nii nii saa yu màggal dikkee suñu borom ful màggal gi ay tiyaaba yu dul jeex moo tax màggal gi àttan lépp bés la boo xam ne benn bés mënul moom ci bés yi bés yi bari na ci ci seen eh, ci bési lislaam bari na tabaski korite tamxarit gàmmo lay du xadri waaye li màggal gi man beneen bis da ko mënut ndax eh, sëñ Moussa Ka dafa ni ku màggal bi su tukkeem ba jixaar nga aj nga umra am nga yoon nga xam ne maanaam yool bi ci jixaar yool bi ci aj yool bi ci umra loolu yëpp bésub màggal gi da koy ëmb tey boo tëbëskee bu tabaski jeexee rek eh, yool bu tabaski nga am boo koritee noonu boo tam xaritee boo gàmmoo noonu bu jeexee noonu waaye màggal gi rek moo ëmb yooyu yëpp ndax kenn kem fa sëriñ bi toll woon ak pas-pas ak aqiida bi nga xam ne amoon na ko ba muy dem moo tax màggal gi amul loolu sëriñ Saliou. mu mel ni loolu léegi am na solo lool signalé ma li nga fi jot a leeral ci sëriñ bi am na solo lool euh, dogguma la sax tax damay lay mel ni ku la dëggalal ci loolu nga wax ndax boo xoolee sëñ bi diggante bi mu fi def ak ak mbir liggéeyam bi ni mu toll da ngay jàpp ni euh, nit ku fi nekkoon ay ay at la ay junni at ci ginnaaw. te lii ñu nekk di di nekk ci nii mu mu nga xam ni àdduna bépp dafa tasaaroo mbirum sëriñ bi eh, bu matee téeméeri at ci lay yam mm-hmm. te téeméeri at ak léegi bariwul mm-hmm. kon loolu uh, war na leeral lu bari ni mbirum yàlla mm-hmm. uh, sëñ Adama xam nga sëñ Saliou sëñ Touba day kiimaan day kiimaan ndax doy na ci wax ñu wax ni baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamin aaya ku suñu borom jox wilaaya xam nga ki ma doon ndax ni dund gi xawee gàtt ci zahir xam ne ak li fi liggéey nga xam nit na ay junni at junni at wala ay téeméeri téeméer liggéey lu dul noonu ndax li mu fi taal ci xasida njariñu nit ñi ndax dafa wax ne ba mu dikkee moom la mu njëkk a wax dafa ne walaw laa kitaabullaay wa sunnatu nabi wa manaafiu naasi maa bittu fi dunya walaw laylatun waxida nee na man ahmadu day bu du woon téere bi yàlla bi alxuraan wala sunna Seydina Muhammad wala njariñu nit ñi àddina ak alaxira Sëriñ Tuubaa nee fanaan ci àddina génn ko di jëral ko ndax moom bako suñu borom bindee la sellal roo xam nga ndax dafa waxal boppam ne saadati yi xabla wujudul xalqi ñu ne ko ah mu ne tabbat taaw kuntali bi talqi nee na sama texe man Sëriñ Tuubaa suñu borom bind na ko bu yàgg dogal na ko bu yàgg laata ma bind bindee ba noppi nag yemu ca waaye euh, boyal ma boyal ma luy boyal mooy lii nit ñi def julli woor natt asaka xeet yooyu nga xam boo ko deful yàlla ëllëg yàlla duma la sëñ Tuubaa ne def ak baayam ci man boo kuntali bi talq sëñ Tuubaa ne loolu man def ak ci man kon moom texe na bu yàgg ba suñu bo boyal suñu borom boyal ko kon lan moo lan moo tax liggéey bi yëpp mu def ko liggéey bi yëpp ak coono yi bu ko doon gàddu suñ suñ jëm nii ndax kat dinaa la nga dégg sëñ bi muy dem ci géej gi booba du ñàkk ba amu tax muy dem du benn gaay yàlla waaye yàlla am garaat boo xam ne am du benn garaat bu góor yàlla am fekk na sëñ Tuubaa amul lu kawe loolu waaye ba muy dem lu tax muy dem loolu moo jar a leer dami ne ndax walla dafay ne mag bu solee daal la war naa wax fa mu jëm dafa ne sababu xëybati sabab bii tax may dem ci géej gi ma kaay dama ko du lu ma ñàkk ba uma ko tax may dem waaye sababu xëybati an na laa araada an anaala minhu jaah an akuna shafi'an li xawmi an kuna an akuna xaadiman fii daw dafa ni sabab yi tax may dem ci géej gi day mooy suñ borom a namm yëkkati sama mbir ci asar te loolu suñ borom yëkkati na mbiram waaye ma nekk kiy wiññi mbindee fii ginnaaw bi ñu suuboo ci yoonu sawara ma win ñi leen yóbbu leen àjjana ba noppi nag ginnaaw bi mu nekkee liggéeykatub liggéeykatub rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax loolu rasulullah moo ko moo ko moo moo moo moo ko tànn ci moom ginnaaw gaa yi yàlla yi bari nañ ginnaaw diggante si dikkon joran saalen ngaa yàlla it bari na rasulullah xóot ci seen biir ba fekk sëñ Tuubaa toog mu ko tegg la ko raama rasulullah min ilay kaw nii xaddimu abdullahi loolu rasulullah ko daan rasulullah nee na sëñ Tuubaa nee na rasulullah moo sàkku fa yàlla ni ko jox ma ahmadu muy sama dong muy sama liggéeykat kon moom loolu sëñ Tuubaa rasulullah moo ko ni def kon moom garaat yooyu yëpp ak ndomb yooyu yëpp am na ko laata moo dem waaye bëgg dimbali nit ñi bëgg a dimbali nit ñi nit ñi sóobu ci yoonu sawara te kenn ku yàlla may kàttan ak xam-xam nga ma leen orienté jëmale àjjana ku amul ku di sëñ Tuubaa mm-hmm. loolu taxan diggante dund dundam dundam googu yëpp rek mu def ci passeport musta nopp la mm-hmm. te di nelaw wala toog di toog di deful dara ndax moom ku ku ku xatalan àddinaam la moom foo mu sa fekk rek mu ngi def lu jëm te yàlla ak yonente bi amoon ko ñetteel mu ngi nekk diggante yàlla ak yonente bi lii moo nekkan ci lii moo nekkan mbiram ba tax na euh, suñ borom yëkkati ko ba mel ni jant yëkkati mel ni jant ndax ci ñetti mbir jant yëkkatiku na ba tiim ñëpp yëkkatiku na ba leeral fépp yëkkatiku na ba am njariñ ci ñëpp mooy Sëñ Tuubaa ndax wallaahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri za naf'an bila darar Sëñ Tuubaa yàlla ma dimbali boole ba mbindeef yi topp ma maay borom njariñ ngiij ak jiiri fu ma dem fekk ma ndax li muy njariñam yëpp da ko delloo ci doomu aadama yi ndax suñ saaliw euh, suñu Abdul Karim Touré mu baax ma nee na diir diir mu nekk sëñ tuba li ko sëñ Tuubaa digal lépp xool na ne moom njariñu boppam ci waaye moom njariñam la sëñ Tuubaa mosu koo njariñu boppam nekk njariñam rek la xewoon maanaam li mu ko digal njariñam dong la lu mu sa dil nii njariñ seen njariñ la waaye moom la ko yàlla defal defal na ko bu yàgg ndax sabba taxaw kunta di bee tàlk la wax suñu borom saxaarat yi xam la wujjul xalxi la wax kon moom texe na bu yàgg kon liñ fi doon def yëpp ak yoonu géej géej coono natt yëpp suñ borom fayee na ko te delloo na ko nit ñu ko delloo nit ñi mooy bésum màggal gii bés la boo xam ni lu yàlla joxu ruu dañ koy màggal diggante ak jinne ak malayka lenn ñett ñooñu kenn ko ci sàggana mooy nit waaye jinne ji wax ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah di nga di nga màggal màggal jox xàqam ndax bi yata'allaqa lazina aslamu min jinni asri duuna man lam yaslimu kon mooy jinni ji wax ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah di nga màggal màggal isa katatu tazz arashul baaqi wa sabbahat malaaka tubaaqi kon malaaka yëpp yëpp yëpp yëpp dañ dañuy wàcc di màggal màggal xanaa lenn ci doomu aadama yi ñooy du ñooy du màggal màggal nga am na ñoom màggal dañ koy gisee na may tey masalan ah, doo màggale ah man de du ma màggal ndax nangam laa jo weesu na loolu ndax ku màggal bisu tukkim ba la wax ku màggal bisu tukkim ba jixaar nga aj nga umra am nga yor ba kon jar naa jar naa jar naa jar naa màggal suñu saali ñu ngi jaar ba ah sëñ kàddu sëñ solo lool kon nag eh, mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi ànd ak ci seen eh, sponsor yi Union bi nga xam ne moo ñuy gunge ci eh, jataayu màggal gi jàpp ci liggéey bu bu baax a baax a baax kon nag sëñ Adama xam naa dañuy yemale foofu kàddu yi ba ci kanam rek eh, incha allahu rabi te ngeen jégal ñu bu baax te xam ni maanaam ak bëgg rek moo ñu dugal. Mm-hmm. ci di gëstu ak di di di di di waxtaan ci sëriñ bi waaye xam-xam bi matew ko. Mm-hmm. te dara matew ko waaye nag ak bëgg moom sëñ Tuubaa moom waxtu wu ne. Mm-hmm. moom moom moom ñu ngi koy xeeñu ndax ndax moo nu ñor. kon nag lépp loo xam ne taaxar lu ngeen ko fi te déglu ko fi mm-hmm. euh, bu bu bu bu bu awee aw yoon euh, ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xam ni euh, bëgguk sëriñ bee mm-hmm. bu jàddat ngeen ngeen jéggal na ko bu baax te xam ne ñàkk a doomu aadama rek signal jërëjëf sëñ xam nga lu am solo nga wax ne saan muy ak bëgg ndax bëgg dafa mën a yóbbu doomu aadama ci lu nekk bëgg dafa man a yóbbu doomu aadama ci fu bari ndax sëñ Tuubaa moo waxal boppam sëñ Tuubaa mi ñu liggéeyal moo waxal boppam ni fa kullu man yi aw maala illa yafartuqu hundan aw maala sëñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xam ne bëgg nga ma baa nga jég nga ñëw fi man suñ borom ku ma bëgg baa jég nga ñëw fi man sëñ Tuubaa nee suñ borom wërsëgal la njub wërsëgal la alal te ñaari yooyu mooy maxe texe àddina ak maanaam njub alal njub mooy texe may texe àllaaxira alal mooy maxe texe àddina te loolu ñaar yooyu bëgg sëñ Tuubaa da koy da koy da koy da koy da koy da koy maye dinaa ci nettali benn xisa bala ñu tënk dafa am ci jamono benn tubaab bu ko bëggoon lool nay ndeysaan ci njëriñ daan ko may ay war ak ay ay ataay di ko bind ay leetar ndeysaan lu ne rek mu defal ko sëriñ bi suñ ñu toog lu jamono yàgg nay ndeysaan gisul gisul tubaab bi eh, moo tubaab yi ci boobu ñoo ñoo toog ba ci yàgg ñu fiir diggante ak sëriñ bi ak tubaab bi fiir ci ni kii daal buñ sàkk moom ci fexe dina dina jéebul sëriñ bi kon nan ko affecté ci réew Soria ñu jël tubaab bi affect ko sa réew yu sore ba fa mu dem mujj ko mujj fa mujj fa làq jamono daal di fay dee. sëriñ bi toog jamono yàgg gisu ko waaye ginnaaw moom day malaka ni dunya ko daal sax ma day borom àddina te àddina boo ko may kër rek boo ko boobee dara du fa réer wax duma ak àddina suñu borom mu toog toog gisatul tubaab bi na mu dëngal àddina bi àddina mel ni bool ci kanam mu xool ko ci daaru dunya gisu ko ci mu xam ne kon ma nga barsàqul kaafiriin ndax ab yéefar boobu nee na mu xool ko barsàqul kaafiriin nag gisu ko fa. mu xam ni kon mu nee na nee am sëtu su ma doon jaaxle foofee naa jaaxle ndax euh, nasaraan bu ngeen indi nekkul addi nekkul barsaxul kaafir naa nekkul naaru jahannam fu mu nekk nee na kon ma seete ko àjjana naa kafa sës ma seete ko ba gis malayka yi di ko joow ci njoowaanu wurus gën a kawe sëriñ Tuubaa ne ko diwloo def fii mun ko xanaa mbàkke bëgg la rek jëfaluma yàlla lum ñu ma indee fii waaye bi may dugg fii la ma malayka yi ne bëgg koo bëgg ahmadu képp moo tax mu ñëw la fii moo tax sëñ Tuubaa bëgg ko day maye àjjana moo tax ma mag ñi njëriñ ndax bëgg ngeen ma ñi ni ko mag ñi loolu def ci ñoom xaal kenn ku ne di daanu ko mbëgg sëñ Tuubaa neen waxuma kii lii dama ne bëgg ngeen mag ñi ni ko mbàkki yaa ñu gënal suñuy ndey yaa ñu gënal suñuy baay sëriñ Tuubaa ni waxuma leen loolu ndax li nekk ci man bu nekk seedi bay dama leen gis dama ndax bëgg ngeen ma mag ko waaw mbàkke sëñ Tuubaa ni man di bëgg ma bëgguma leen yàlla rek laa bëgg waaye ma bëgg ma leen dina tax nit ki dina war a dem ba sawar yeeku ko war a dem sawara ñu wëlbati ba ni mu àjjana kon bëgg na ma am na solo ndax baaraka lii fil xarakaati wa sukun rabbi lazi xal xaarale kun fayakun kon kooku fa kullu man xaddamin la wax aw zaara fa najji wax fil aw zaara kon sëñ Tuubaa euh, moo ne mel kon yàlla yàlla xiir ñi gën bëgg sëñ Tuubaa maam Seex Faal kere bu ko sëñ Tuubaa yeewee dañ ko loo wax loo bëgg ma defal la ko naa lay gën bëgg rek ndax xam naa ni euh, bëgg la mooy jaamu yàlla waaw kon nañ ni yàlla yàlla xiir ci ñi gën di bëgg sëñ Tuubaa rek sëñ Saaliw ñu ngi siyaar bu baax a baax waaw amiin amiin jërëjëf sëñ Aaliw jërëjëf jërëjëf kon nag yàlla yàlla gën a taw feexal ñu gën a bëgg sëriñ Tuubaa di ñaanal sëriñ Sidil Muxtaar mi mi fi sëriñ Tuubaa di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootuk Cheikhul Xadim gépp ak bokk yeeg taalibe yi ñoo ngi ñaanal ñëpp xam naa waxtu weenu nu gàtt da dakk sax dañu aadama waaye bu dul woon loolu mm-hmm. dañuy dëng dañuy àggale ak yow ba ci kam waaye eh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi gis kon nag maa ngi gërëm it sama cameraman mm-hmm. yi sëñ góor ak sëñ gambien mm-hmm. ak sama réalisateur bu baax a baax jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu